<laughs> alaxira googu nu jëm. alaxira googu nu jëm. xam xam xam xam nañ ko bu baax. xam nañ ko bu baax. waaye ngërëma sëñ Tuubaa rek lañ fa soxla. waaye nee na ni ñu koy xam xam ngërëma sëñ Tuubaa rek lañ moo fa dàqal àjjana. mais moo la nga am na am na lu fa dàq àjjana nag. na am na lu fa dàq àjjana. loolu nag bu na ku am ngërëma sëñ Tuubaa am ko. nee na loolu ku am ngërëmal sëñ Tuubaa am. ndax ngërëmal yàlla rek la. mooy ngërëmal yàlla moo dàq àjjana. moo dàq ngërëmal yàlla nee na ngërëmal yàlla